الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سن la imaam Ahmed Mokhtar Kanté ma dellu si ci ndimbalu sunu borom subhanahu wa taala di tàmbali waxtaan bi di ko tàmbalee nañ ko war a tàmbalee mooy di leen yónnee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa rahmatullahi wa que la paix soit avec vous ou que vous soyez mo xam yene ngi Sénégal di ñu déglu mo xam bitim rew di leen masaw coono di len baalu haq di len bal haq su ko defee bëgg yeggali euh, waxtaan bi nga xam ni euh, tàmbali nañ ko ci sujet boobu ñu tuddee ci tubaab euh, sexe sexualité et plaisir au regard de l'islam maanaam mbiru awra niñ ko waxee ci olof mbiru bànneex ak mbiru sëy ci jàngale l'islam ku dellu ci vidéo bu njëkk bi ci Tidiane TV sunu chaîne YouTube di nga gis di nga dégg ni ñu ubbee waxtaan bi ci euh, wàll boobu ñu jeexaloon nag ci euh, vidéo bu njëkk bi euh, doon nettaliwaat ne alquran ci cosaanu doomu aadama àdduna ci mbiru awra kon ku yaakaar ni loolu alquran daf ko soobantal wala alquran waxu ci xëy na kon yaa ngi bëgg a juum ndax dangay gis ne daanaka sunu maam adama ak xawa alayhim assalaam eh, bi ñu nekkee eh, aljanna amuñu yég yëg ci mbiru awra eh, ak li ci aju yëpp lu dul ginnaaw bi ñu mën nga waxee bu ñuy moyee borom bi subhanahu wa taala bi ñu defee bàkkaar mooy ñu lekk ci garab gañ leen tere moo tax alquran nettali nañu aay ba ma tudd ci video bu njëkk ba wa tafiqa yaxsifaani alayhima mi waraqil janna ñu mujj kon am yëg-yëg ak di gis seen awra moo tax ñu mujj jël ay xobu garab ci garabu aljanna yi di ko muur ci seen euh, awra loolu nag gëstu bu xóot la laaj ngir mën a am ay euh, jàngat ci euh, xikma bi nekk ci ginnaaw loolu waaye loolu nekkul sujet bi nekkul te ma sunu waxtaan bu ko defee mu mel ni da ngay gis ne kon mbiru góor mbiru jigéen ak li ñuy séq ak mbiru awra mu mel ni kon na nga gis ne sunu borom subhanahu wa taala ci mbiru awra ak mbiru góor ak jigéen ak sëy bi nga xam ni dana leen euh, sant ñu euh, séq ko ngir ay njaboot ay doom mën cee bàyyeekoo ay góor ak ay jigéen nga gis ne kon ci wàll boobu sunu borom subhanahu wa taala àdduna ci ci tàmbali cosaanu doomu aadama alquran di leeral ni góor moo am ak jigéen bu dee ci wolof la beneen làkk boo dem tamit am na nu ñu tuddee góor ak jigéen euh, ñoom ñaar nag ñu nekk li tubaab di wax couple maanaam euh, ñu nekk ñaar di euh, mottalante ñu nekk benn couple ni ko alquran tuddee ci ay yoon yoon tudd d'abord ni góor moo am ak jigéen az zakar wal unsa wala nga dégg mu naan ar rijal ak an nisa euh, ak yu ni mel ci alquran waaye doo dégg mukk euh, alquran euh, ñu mën cee jëlee lu ñuy war a mën a tuddee leneen lu dul góor wala jigéen ñaar yooyu moo am yooyu moo am bii ngay doon wala bii ba noppi nag ñaar yooyu borom bi daf leen def ñu nekk couple di mën a mottalante te ni ko yàlla bindee noonu la gënee non la baxé buñ ko fi bayé rek comme légui li xew yoy dina ñëw ci yenen audio euh dañuy dugg rek ci ay tolof tolof ak la jël sunu bop nga gis ne kon sunu borom subhanahu wa taala ni muy waxé ci alquran euh di wax ne يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء xoolal muy wax foofu nangeen ngeen teet seen boroom ngeen ragal seen boroom bi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkante muy Adama alayhi salaam jëlee ci moom bind euh, euh, soxnaam tamit sunu maam Hawa boole leen ñoom ñaar jëlee ci ay góor ak ay jigéen yu bari nga gis ne kon notion couple ni mu nekkee lu rafet nekk lu ànd kon góor ak jigéen borom subhanahu wa daf leen bindee ci anam boo xam ne dañuy mattalante te danañ ci gën a ñëw ci waxtaan yi eh, dangay gis góor ni mu bindoo ci wàllu eh, cëram eh, cër bi muy sëyee ak ci wàllu ngóoraam dafay mottalante ak jigéentam ni mu bindoo ni ko suñ borom bindee ci cëram ak ci njigéenam ñi nga xam ne nag gëmuñu ne sunu borom moo bind nem dañ naan nature bi rek moo fi nekk même ñoom sax dañ naan la nature a bien fait les chose euh, mu des nag ñu lijjanti nature boobu fan la jóge ak euh, nu mu demee kon ngeen gis ne euh, góor ak jigéen kon moo am amul ñetteel amul ñeenteel amul eññeem leneen lu fa feeñ rek loo xam ne la lu ñu war a seet la seet nuñ koy joyante ndax mu féete ci góor walla mu féete ci jigéen nga gis euh, ci yeneen aaya euh, boo gisee borom subhanahu wa taala lim ñuy wax ci alquran hunna libaasul lakum wa antum la lahun ne ñoom jigéen ñi ay yére leen pour yéen ay yére lañu pour yéen góor ñi yéen góor ñi tam ay yére ngeen pour euh, jigéen ñi ay sont des vêtements pour vous vous êtes des pour elles xam nga kon xoola tëgginu wax boobu ni mu rafetee xam nga boo waxee yére rek indi nga yére moom day nekk loo mën a sol dalay suturaal nangam ak nangam mu ne nekk loolu nga ci sa morom nga xam ne kon notion couple bi ñëw na encore notion complémentarité kon mbiru xeexoo ak boddante ak jaayante doole ak notteel ak yu ni mel du loolu la alquran jàngale ci wàllu diggante góor ak eh, jigéen su ko defee nag eh, moo tax nga gis ci biir alquran nga gis tam ci biir xaddis yi ak ci biir atte charia yëpp eh, mi ngi am cëslaay ci ne góor moo am ak jigéen boo bëggee wax ni am na leneen loo xam ni duñ ko tuddee góor duñ ko tuddee jigéen daanaka dangay ngay màbbal atte charia yëpp euh, ndax atte charia yëpp mi ngi tegu ci boo jëlee miraas boo jëlee euh, jëkkër ak jabar boo jëlee yu bare bari euh, boo jëlee colka li ci charia di atte boo jëlee wàllu laab lu bare bari daal charia mi ngi atte ci baasu ne góor mooy góor jigéen mooy jigéen ku ci nekk ak say atte say différence complémentarité bi am ci ñoom ñaar su ko defee euh, bu fekkee ni nag euh, gis nga alquran aussi waxaat laysa zakaru kal unsa hmm, euh, ak yeneen ak yeneen ci ay aay yu mel noonu góor ndurawul ak jigéen su ko defee moo tax nga gis islaam saa su ne dafay jàngale niñ ko xamee ci yeneen bi alayhi salaatu wasalaam teqale góor ak jigéen Euh, depuis ba ñu nekkee sax euh, tout tànk euh, ak it góor bañ di jigéen jigéen lu jigéen bañ di góorgóorlu ak li aju yëpp kon yow may déglu nga gis ne noonu la demee te ni yàlla bindee mbir yi lam ci àtte it noonu moo gën moo jig doomu aadama ndax moom du jaawatle moom sunu borom du juum du fàtte du jaxase nu mu àttee rek noonu la parce que moo bind amul lenn lu ko mën a réer ci li mu bind euh, la muy àtte yëpp tam mi ngi ko teg ci xam-xam ak xereñ ak màndu ak dëgg ak li ci aju yëpp su ko defee kon nga gis ne day am solo lool euh, euh, jullit bi xam ne mbiru kon nekk góor nekk jigéen mbiru góor ak jigéen li ñuy seq ci sëy bu fekkee Euh, dañu bëgg mu nite mbiru sexe mbiru sexualité euh, mbiru plaisir dañu bëgg mu nite te loolu moo ci am solo ndax bu nitewul rek bu malawee rek euh, day doy waar mala na ko yàlla bindee ma nga ca loolu nit nag bokk na ci li ko wutale ak mala te tam loolu dafa war a feeñ ci mbiru nu muy jëfandikoo bànneex ak awra ak sëy mu nite mooy mu am ay pas-pas yu ko lal am gisin bu ko lal am ay jikko yu ko lal ñu wax ay valeur am éthique bu ko lal Euh, amit euh, pas-pas bu ko bu ko lal ak ay jikko ci loolu lay nekk lu nite bu du lool rek kon nit ki mën na jëfandikoo mbiru awra mbiru bànneex ak mbiru sëy ci anam bu malawe anam bu doy waar bu ñaaw boo xam ni day yàq lu bare bari da ko yàq moom waaye itam yàq ñi mu koy jëflante kon euh, mbokk yi foofu la ñuy yem ci ñaareelu vidéo bi bu ko defee incha allahu taala di sàkku ñaan ci yéen bu ko defee نتيل فيديو بي نيو تي تومب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين